del déglu del xool Feeling Dakar site bi rahmatullah àdduna man la Cheikh Fall bu mouvement nitu dëgg Cheikh Fall bu ànd sàmm jikko yi ah, li ñu waral tey jotaay bi du lenn lu dul Wally Seck mii nga xam ni dafa nekk ci réew mi di def lu ko neex di promote góor jigéen suba ak ngoon guddeeg bëccëg ne kenn du ko wax gis nañ nag mu def vidéo ni dafay menacé waate ne képp koo xamante ni dafa def vidéo jël na pôle d'avocat na jël pole d'avocat jël pôle chanteur jël pour communicateur traditionnel yëpp ñu nekk si ginnaawam Wally Seck tuuti na si noppiloo ñu Wally Seck nit ñi bi ñuy combattre franc yi di leen dénoncer di xeex ak système bi fi ne yaakaar naa ñoo ñoo la ëpp doole. fii góor jigéen du fi lambar lambari góor jigéen du fi am baat kenn du fi promote góor jigéen tey ñu lay seetaan kenn du fi promote góor jigéen suba ñu lay seetaan góor jigéen du fi am baat bindal 1000 citations wala 14 millions de citations te nga xam ni xeex bi ñu ngi si sa kaw wala nga arrêté si ne la war nga dem beneen dëkk dégg nañ nag barki démb veille bi ngay def sa vidéo association góor jigéen yeneen France nee nañ képp koo xamante ni da nga nekk Sénégal na nga résister boo résister soo amul foo jaar na nga dem si seen association bu ñuy wax Sénégal libre nga dem fa bindu fa comme ça ñu mën a ñu mun laa taxaw ci deux milliards yi nga xamante ni subventionné nañ ko góor jigéen yi ñi ak ñi nga xam ne dañu leen di promouvoir fii ci Sénégal ci fukki million milliards yi nga xamante ni Afrique lañ ko lañ ko jagleel deux milliards yi moom Sénégal ñoo ko moom da ngeen di sonal seen bopp ji yow ak ñi la yabal ak ñi nekk seen ginnaaw yëpp ñi ngi seen kaw bu ngeen arrêté wul li ngeen nar a gis moo nar a gën a tar fii góor jigéen du fi am baat góor du fi gën du fi lambar lambar yi ànd sàmm jikko yi for life nitu dëgg for life asalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah man la Omar Sarr bu mouvement nitu dëgg bu ànd sàmm jikko yi collectif non à l'homosexualité ñun ñooy jóg ñu ni dañuy defendre valeur yi fi maam bàyyi woon ñoom maam Ahmad Bamba ñoom maam El Hadj ñoom maam Baye Niass yow Wally Seck nga ni yow yaay jóg yow yaay yàq valeurs yi fi maam bàyyi woon ba pare nga ni kenn du ko wax yow yaay kiy dooleel góor jigéen yi fii ci Sénégal yow Wally Seck yow yaa leen di arboreel seeni couleur ci jamonoy gay pride yow yaay sol couleur góor jigéen yi di ko représenté fii Sénégal ba góor jigéen yi si àdduna bi yépp di la féliciter di la remercier si teewal bi nga leen di teewalee fii si réew bi yow Wally Seck nga ni kenn du ko fi waxee te yow yaay yor saagu jigéen góor bu sol saagu jigéen góor bu yor saagu jigéen góor jigéen lañ lay tuddee góor bu sol dàll jigéen góor jigéen lañ lay tuddee yow Wally Seck yow yaay nekk ci concert di way Pape Mbaye Pape Mbaye nga xam ne góor jigéen international la taxaw di la may xaalis di fecc di biij yow ngay kon konne di ko way di collaborer ak moom ba pare ngeen kenn du ko wax ñun ñoo la wax ni la yenent bi li mu wax moom la ñu gëm nee nag nit ku nekk ñamuy niru niru nirulu ci ñooñu la bokk te yow Wally góor jigéen yi ngay niru lu ñoom ngay àndal ñoom ngay représenté fii ci Sénégal ñun ñoo la ko wax xoolal lépp lum la jaral ñun jaral nañu ko dix mille fois parce que ñun fayuk yàlla lañ ciy xaar te yow fayuk seytaane nga ciy xaar wasalaam